xarit na ngay nangoo xalaat te ngay xalaat lu am njariñ xalaat bu génnewul njariñ dikkam nga dootu am xorom na ngay xalaat ci sun boroom te ngay xalaat ci lim amal li imam Chibli wax ni doomu aadama yi ba tey xamuñu ñooy kan nee na ndax xol rekk mën a gëm leneen mënul gëm xol te xol ci doomu aadama la nekk nee na te yàlla nee na xajuma ci asamaan xajuma ci suuf wante xaj naa ci xolu ki ma gëm nee na kon nag qalbul muumin xayrun min as-samaa nee na xolu ki gëm moo gën asamaan yaa xamul sa bopp rekk waaye wante euh, xolu ki gëm moo gën asamaan ndax asamaan àttanul yàlla yàlla xaju fa waaye xaj na ci xolu ki gëm lu mat a bàyyi xel la boo ko foyee lépp foye la te yàlla kat dafa wax yonent bi ñu ko kaay ñu déeyoo maak yow ak jibril am na nu noon bu rëy de mu di iblis Dia kata mak kham, mak mai pun mudoyak. Cuma lawa ni mat nan non rek, japul ni mat nan non.